salut les amis du Patriote d'Inter, merci encore de la confiance au nouveau les gars way leen di abonné way di like di leen jaajëfal encore ci seeni proposition ak aussi suggestion yi ak aussi commentaires yi ngeen def leen ko jaajëfal aujourd'hui nous allons parler des Blaugrana le SC Barcelone avec la Pulga Lionel Messi qui est d'accord par le principe sur le principe que Kalidou Koulibaly ñëw fa commande, moom dafa bëgg Sadio Mané peut-être mu ñëw foofu ci FC Barcelone qui dee a ki nga Ousmane Dembélé day dem lu Ousmane Dembélé di dem mooy ne fi mu ne bëgg indi Neymar te bu ñu Neymar il faut que nous proposions propose benn joueur Paris Saint-Germain également ci cadre échange bi ndax koppar gi mënuñu ko fay mooy jox leen ki nga xam ne Dembélé ngir kii di Sadio Mané ñëw Coman nag moom moo yoroon Sadio Mané bu leen ko fàtte ba mu nekkee il a toujours aimé Sadio Mané et Coman aujourd'hui est prêt à accueillir Sadio Mané au FC Barcelone parce que c'est un joueur qu'il aime et c'est un bon joueur Kalidou Koulibaly le hargneur le défenseur le rock, le puissant défenseur sénégalais bi nekk Naples tamit qui di la daf ko bëgg indi pour assurer Messi et équipe bi ñu bëgg bâtir des ngir mën a gis ne Koulibaly ci lay bokk Sadio Mané bu ñëwee tamit dina indi renfort de bu force lay indi ndax ki nga xam ne mooy Sadio Mané prolongé gul contrat fi nga xam ne moom mooy ca Liverpool te tax na jamono jii bu dee ne tamit Barcelone ñoom dañu bëgg rapatrier Neymar ndax Neymar nee na moom dafa bëgg a jouer ak Messi deux options mooy am Messi dem Paris Saint-Germain wala Neymar ñëw FC Barcelone te bu demee ki nga xam ne nag moom mooy euh, Ousmane Dembélé dañ ko ciy boole ci transaction ndax yoruñu xaalis bi moo tax Sadio Mané day ñëw dafa nekk ik jour boo xam ne soxla nañ ko par rapport profil de jeu am waaye tamit Coman euh, bëgg na ko Messi tamit yàgg na wax ne moom ku Ballon d'Or bi sax ne Sadio Mané la parce qu'il est d'accord pour que Sadio Mané ñëw Kalidou Koulibaly c'est un technicien de par son positionnement de par son déplacement de par également sa manière de récupérer la balle ba tax na moom jamono ji Aurelio De Laurentis, dafa fixé woon 70 millions dem 80 millions lay jaayee kii di Kalidou Koulibaly waaye fi mu donné dafa changé ndax Covid bi dafa dugg moo na tamit FC Barcelone pour mën a indi Kalidou Koulibaly pour les nañ koy indi ñoom dañoo bëgg boole Samuel Umtiti ci transaction bi Samuel Umtiti le défenseur français bi nga xam salaire bi nga de fay dafa bëri de mi ngi di décevoir moo Koulibaly Sadio Mané au FC Barcelone option là, bu meuna ah, rumeur mais parce que ils ont le potentiel ils ont le background ils ont également le niveau euh, niveau bitar, tax tamit di Messi yàgg na awiye d'accord ci Kalidou Koulibaly ndax saa yu cité meilleur défenseur il est wax Kalidou Koulibaly wax Virgil van Dijk wax ki nga xamné Gérard Piqué ba tax jamono ji ñu japp né rek ki di porta pour mën convaincre Messi mu dem da koy wax né waaw Messi il faut nga dess ndax équipe bi ñuy bâtit défense bi day baax te Kalidou Koulibaly buñ ko indee day bokk ci défenseurs yi nga xamné dañuy mën renforcer équipe FC Barcelone bi parce que lui ni muy bëgg gisee bal bi diko ko non lay dundé football bi non lay dundé métier et Messi aujourd'hui ngir mu mën dess FC Barcelone ndax moom contre Ambierna, jeex na dafa bëgg am ay assurance que équipe bu ñu bati équipe bu baax la ci tous les niveaux ba tax ñu japp ne rek Messi Kalidou Koulibaly ci équipe option bu baax la té Laporta il fera tout on le sait il fera tout wax pour maintenir euh, le joueur argentin le meilleur joueur du monde la pulga la puce ci équipe bobu nonu motax

Kalidou Koulibaly aujourd'hui ñëpp yéene nañ ko tamit mu jouer finale Ligue des Champions jël li nga xamné moy Ligue des Champions jël tamit Europa League ndax ba mu nekkee naaf ba léegi jëlul trophée majeur yooyu noonu ba tax na bokk na jamono ji ci li tax ñu gën a wax ne ah mën na nekk waaye tamit Manchester City Manchester United tamit United également ils sont sur dans la course ñoom it dañoo bëgg euh, li nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly Klopp également dafa bëgg Kalidou Koulibaly Sadio Mané Messi moom it daf ko bëgg ndax waxoon na ne moom Sadio Mané la voteloon ci Ballon d'Or bi passé Sadio Mané ñëw fa tamit. di continuer di ko wax ba tey gars yi rek mooy loolu mais euh, kii di Sadio Mané ak kii di Kalidou Koulibaly ñu ngi leen di tudd foofu noonu ci FC Barcelone loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy bëgg sur la arme, sur également le talent, sur la vitesse, amna un point de ressemblance et que Sadio Mané dem FC Barcelone, on l'espère Vous hein. faites qu'elle bataille, ce n'est pas encore quelque chose de confirmé, ce serait bon pour le football mondial mais également ce sera bon pour le FC Barcelone, ce sera bon également pour les Sénégalais de voir Sadio Mané évoluer dans une équipe comme le FC Barcelone ndax fi ni ne waxé meilleur joueur du monde da ngay wax Messi wax Ronaldo wax Sadio Mané wax Salah wax Neymar wax Mbappé wax tamit yeneen ak joueur wax De Bruyne Batar Sadio Mané aujourd'hui le voir évoluer fi nga xamné FC Barcelone Dou bett kenn waye tamit Kalidou Koulibaly option aussi bu sérieuse les gars 3 à 4 équipes ñoo koy je retenez Manchester City avec Pep Guardiola retenez Manchester United avec Ole Gunnar Solskjaer retenez Jurgen Klopp avec Liverpool retenez également euh, qui dit Messi avec Laporta et également Coman pour faire venir Kalidou Koulibaly, le roc de la défense sénégalaise, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, le défenseur de Naples, avec Sadio Mané, Montar, les gars, c'est ça, c'est pour ces raisons que nous aimons vivre le football. Yalna yalla def